di am mbégte lool ak kontante ci toog ak suñ mbokki taalibe waa daayira mu baar ko ibtidaay bu Touba wagera bu Italia ñu ñëw fi ak Pastef ak jom indi fi ay barkeel jumaa ji ñu war koo jébbal daayira bi nga xam ne ni mooy toppatoo jumaa ji ngir muy jàpp ci ket gi ak xayal gi nga xam ne ni sëriñ bi moo joxe ndigal ci maa ngi ne fu mu toll nay set di xeñ ñu neex kon ngir bañ guddal rek ndaxte daf gi jot na jox kàddu gi sëriñ Moustapha Ndaw mi seen wax seen tur mu jébbale liggéey bi suñ paree sunu jëwriñ Cheikh Abdou Ahad Bousso Muxtaar mi nga xam ne moo yor lépp lu jëm ci wàllu coordination ak jubbanti liggéey bi mu tontu leen ñu ñaan kon bismillah sëñ Moustapha Ndaw asubillahi mina sheytaani rajim bisimillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu uh, di nuyu waa muxaddamatul xidma ci njiital sëriñ Abdul Ahad ak ñii mu nekk dépp waaye di jiital ci nuyoo bi sëriñ Muntaxa Mbàkke di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te wér njabootu sëriñ Tuubaa gépp di sant yàlla bu baax ci barab bii nga xam ne ñi ngi fi toog fekk leen fi ngeen nekk ci liggéey sëriñ Tuubaa bi te liggéeyab sëriñ tubaab bi ware leen ñii mu leen ware mu ware ñu ko waaye ngeen féete ñu ci wàll gu nekk loolu dañ leen ci ñaanal fan wu gudd wu ànd ak wér ndax euh, gis nañ ne lépp loo xam ne nii dañu koy def ay ndaw jiite ko kanam rekk lay jëm bu dee mag xalaat yi mën naa rafet waaye mën nañoo dem ba doole ji néew kon nag yàlla bi ñu tànnalee ndaw yu mel ni yéen tegu ci yoonal siraatal mustaqim muy ci jumaa ji muy ci barab bi muy ci fole ci bàq ya ak yeneen yi nga xam ne aju na ci dëkk bi ñu gis taxawaay yi ngeen xam ne taxaw ngeen ko ci loolu dañ ciy sant yàlla bu baax xanaa di leen ñaanal rek yàlla guddal seen fant dolli leen ak wér nuyoo bi ñu ngi ciy jiital sëriñ Amar Faye mi nga xam ne mooy njiital daayira bi ak sëriñ Bay Géey ak mbooleem ñii ñu àndat ñi nga xam ne ñoo bokk liggéey bi liggéey bi nag fu ñu ko tàmbalee woon tuuti na lool waaye nii ngeen ñu waxee ngeen ñaanal ñu ba mu gudd ndax dañoo xëy xëy toog rek jumaa ja daal gannaaw ñu ñëw waroon a nekk fa yor ay bale di bale di xëy di gontu te loola defuñ ko kon léegi nañuy defati mu ñuy defati daayira Sëriñ Tuubaa ñu yor ak mbuus lu waay man ñu ne lu jëm ca mbale ma noonu lañ ko tàmbalee Sëriñ Baara mii mi daan ko jiite ba yàlla def moom mu ñibbisi nekk fi waaye ba mu ñibbisee ñu tànnaat jeneen jëwrin mu yor liggéey ba di ko doxal liggéey bi ñu am ci jàppandal goo xam ne gi Sëriñ Abdou Diop mii nga xam ne at mu jot dafay dugal ab conteneur nee nañu woon lu fi mën di daje te jëm ci jumaa ja jaral na ko bàyyi fi bagaas yi boppam te dugal bagage yooya moom moom lu la sartoo nu mu mën di toll rek mooy sëriñ Abdou Diop mii lu mu mën di toll nee na jaral na ko bu bagage na ree des mu bàyyi bagage yooyu dugal bagaas sëriñ Tuubaa te it noonu la koy defee ndax saa yu ñu di ko jàppale daf naan nañ seet bagage yi jëm ci kër sëriñ Tuubaa ga jumaa ja ba noppi ñu teg leen fañ leen teg soog a teg liggéey bi kon moom itam ngeen dolli ko ñaan liggéey boobu gën a jëm kanam confédération bu bu ngeen ñu wax it wax dëgg yàlla danañ ci taxaw incha allah ndax mooy gën a jëmmal li sëriñ bi bëgg ndax sëriñ bi lii ñuy def ñun la ñor waaye sëriñ bi mbooloo mi doo ànd doon benn moo ko ñor waaye tayli bi nag at yii da ko du wàcc mukk fii ak mi ngi ci kaw suuf mooy rafetul suñu liggéey te liggéey sëriñ Touba yii kat képp koo xam ne kii yaa ngi ci war ngaa sant yàlla bu baax ndax damay mas a dégg Alaaji Baara yàlla na yàlla yokk leer mu wax ne euh, sëriñ Fallou de bi mu taxawee jumaa ji ba di ko liggéey ba mat dafa woote mbooloo mépp teew ñu ne jumaa ji de ban na rafet na waaye boobu ba mbooloo mépp teew it dafa mel ni ñëpp a def waaye nee na bu ëllëgee ña defoon rek la ñuy fay kon maanaam bokk ci liggéey sëriñ bi baax na lool yàlla taw feexee la ni ci jëmm mel ni sëriñ Muntaxa nga xam ne maanaam jaratul nit ñi ñu naan la góorgóorlu ndax moom pas-pas booy fekk rek ma nga ca ak yéene joo xam ne jigi am na ko ci ñun am ko ci jullit yi te lépp dara warlu ko lu may bëggal suñu njëriñ tey ëllëg ak suñu njëriñal Euh, tey ak suñu ëllëg moom moom rek la ñu bëggal te ci lay xëy ci lay gont kon bu leen tànnee teg leen ci suñ kanam wallahi la sim danañ sant yàlla bu baax danañ leen ñaanal fan wu gudd danañ leen ñaanal ak wér ba liggéey Serigne tubaab yi fu ngeen ko bëgg a jëmee ngeen àggale ko fa incha allah daal moom ñi ngi ci seen gannaaw di déglu seen i ndigal di bay tere yi di ñaanit ngeen jot ci lu ñu mbooleem ñi nga xam ne yéen a bokk liggéey bi ngeen jot li suñu nuyoo te xam ne daal yéen rek la ñuy déglu fas yéen a jege ndigal te bayi teral ndigal yi nag dara jiituw ci liggéey sëriñ tubaab bi moom daal danañ ci def luñ man ak luñ mënut incha allah ndax nit ki su fekkee ne day def lu man rek eh, liggéey bi des na ab taalibe day def lu mën ak lu mënut bu ko defee suñ borom fekk ko ca la mënut jàppale ko ca ñu ngi sant bu baax eh, di nuyuwaat sama sëriñ bu baax sëriñ Abdoulaye moom dañoo yàgg lool wax dëgg yàlla muy sama jëwrin toujours bu fa daan ñëw day ñëw ba ci kër ga moom damay dem ba si yàgg sax damay xaw a kii ndax moom defuma sax ne ab taali bi ngay doon damay def nag mbokkum julli la moo xam ne damaa war a seet si ma di ko war a defal lépp te loolu wax dëgg yàlla xam naa cër ba mu nekk xam naa fi mu nekk euh, magam ji nekk fële di sëñ Babacar moom it noonu laa ko xamee mu nekk ci tool yi sëriñ Tuubaa yi di liggéey kon sëñ bi ñu ngi leen sant bañ a guddal di ñii nga xam ne ñoom ñoo bokk ñoom ñoom it wàllu Louga lañ nekk toujours bu bis bii ñëwee dañuy ñëw sëriñ Mor Gaye ñoom ñëpp daal ñoo bokk nekk Ravagara ci daayira ba ki ngeen gis daal ak ki ngeen gisut benn pas-pas boobu rek la ñu am mooy ànd ak yéen liggéeyal sëriñ Touba yàlla nañ ci yàlla tënk ñu ngi leen sant di leen gërëm di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa ummatihi ajmain asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu leen waa mu mubaarakul ibtida bu Touba Boguéra ñi ngi leen di nuyu nuyoo boo gën a tedd di jël nuyoo bi di ko teg ci loxol sëriñ Moustapha Ndaw mi ak sëriñ Bara ak bokk yu tedd yi nga xam ne ñoom la àndal ñu teew fi teewal leen fi di nuyu itam bokki taalibe yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi ñëpp te ñoom ñëpp xam naa ne tey jii seen xol ak seen xel lépp mu ngi ci barab bu tedd bii ndax yenn a jure ji nga xam ne am nañ ko te di ko feeñal waxtu wu ne ni ñu ko daan defee nag at mu jot yaakaar naa def nañ ko ay at yoo xam ne at mu jot danañu indi ab liggéey boo xam ne day jëm si fii ci jumaa ji ren jii defeeti nañ ko noonee ñu ko daan defee indiwaat nañ ko ba tegaat ko ci loxol daayira Muxaddamatul Xidma ngir ñu war leen ko defal ci jumaa ji ñu di leen sant nag ci tuuru sëriñ bu Bousso mi nga xam ne mooy jiitu daayira bi di sëriñ Afiya Bousso imam ak sëriñ Abdul Ahad so mi nga xam ne mooy Abdul Ahad Moutalib di secrétaire général bi ak sëriñ Abdou Lahad mii nga xam ne moo jiite lépp lu jëm ci wàllu sociale ak wàllu bitim réew euh, ak jëflanteeb daayira bi ak yeneen daayira yi ak mbooleem nag ñi nga xam ne ñoom lañ seqal daayira bi ñëpp ñi ngeen ci xam ak ñi ngeen ci xamagut di rafetlu itam liggéey bi bu baax di yóbbante itam suñuy nuyoo ci sëriñ Darou Touré ak sëriñ Ibrahima Ndiaye euh, ñi nga xam ne ñoo jiite fédération euh, bu confédération du Italie di sant bu baax itam sëriñ Abdou Diop mi nga xam ne lépp luy bagage lu jëm si fii sasoo na di ko indi ngir jëmmi sëriñ Touba ci ab dugal ko ci ab liggéeyam te ngeen ànd ak moom nii tey liggéey bi nag ni ngeen ko waxee rek was pasu morit yépp la waaye sun boroom subhanahu wa taala moo lay defal ak jagle nga man cee jëf ndax foo xam ne euh, ku fa jëf mu nekk sam ràmm te loolu waxuñu ko Sëriñ Tuubaa moo ko wax wax fir li man banaw binaaha rafia wax fir li man amarahum bihi jamia euh, ba wax ji jeex loola li muy tegtale mooy euh, képp koo xam ne def na ci mbaa mu dégle ñu def ci mbaa mu dimbale ko ci def mbaa mu jàppale ñi nga xam ne ñoo ci def ak nu mu leen mën a jàppalee ak fu leen mën a koo kooka la Sëriñ Tuubaa ñaanal njëggal te njëggal mooy jëriñ ab julit ëllëg yowmal xiyaamati képp ko dajeek boroomam njëgal rek mooy la fa am njëriñ te njëgal loole nag la Sëriñ Tuubaa ñaanal képp ko def ci barab bii kon day mel ne képp koo xam ne sun borom baaxewu ko mu nar a am njëgal jëf ci du ko yomb kon nag képp ko ci jëf sam xel war naa dal bu baax a baax a baax a baax kon nag Sëriñ Moustapha bokki taalibe yi ngeen ko seqal fii de képp ko fi jëf xelam war naa dal bu baax ndax Sëriñ Tuubaa waxoon na ne ku feeñ danga feeñ ba faw ku fi nëbbu itam kooko dana nëbb ba faw loolu nag yàlla nañ bokk ci ñafey feeñ ëllëg ci kanamu sëriñ Touba loola yéene jooje ak pas-pas boobee it moo indi liggéey bii nga xam ne tey jii sumb nañ ko ba at mu jot kenn ku rek ci yéen fexe ba lu mu néew néew am dem ca ngir ñu mën koo dajale andi ko fii tabax bi nag ab mu ngi tàmbalee woon ci fondation dem ba egg ci noppi waaye ba mu noppee li tax li tax ñu xam ne leen noppiwut sëñ Fallu moom nga wax ba mu koy jëppale dafa waxoon Serigne Touba ne ko seen sa jumaa ngi noonu dañoo toll fii tey tollu fa ak yow waaye bu nu ko weesoo itam weesu ko ak yow ba muy koy wax ba muy waxam ak murid yi daf leen ne woon seen yëxub jumaa googu ba fumu ba fumu ak numu léegi nag fi buñ demoon ba mën koo xoobe oor itam kon fumu moom weesoo ko demoon ba mën ko e-, e-, egg jamaa fumu jawje day dikkaat leneen lu gën a foor loolu itam bu demee ba am ci àdduna itam buñ ko mënee def ñun fu mu joojee daf fay àgg te barab bi nag bañ ko gaaralee Serigne Touba Serigne Touba ci boppam wax na ne junne yi ñëwal nañ ko ngir bëgg koo defar mu ne leen waaw baax na jërë ngeen jëf sant naa leen gërëm naa leen waaye dama amoon njaboot te bëgg ñëw jariñu ci malaayka yi ñëw mu waxaat leen loolu kon nag ñun ñi ngi di ñun njabootam nga xam ne ñoo jàppee suñu bopp ak njabootam lay tax suñu xel gën a dal ci ne ak njabootam lañ mooy nañu nangoo yëngu ci jumaa ji nangu cee feeñal sunu ñaq nangu cee feeñal suñuy jëf nangu cee feeñ itam nag te féete woo ko féete gu gu biir yéen nag loolu yéen a ngi ci biir yàlla na sun borom gën a jàppale te gën leen a dëgëral te defal leen tawfiix te lépp lu ngeen ci def Sëriñ Tuubaa nangu ko te rafet nañ ci njort am nañ ci yaakaar am nañ ci sax yàqin ci ne fii moom lu fi waaye jëf Sëriñ Tuubaa moo koy nangul boppam yàlla nañ fi teewaat ay déwén yu bari yokk googu ngeen di wax itam mu yokk ba ngeen xam ko bu baax a baax a baax ne yokk na ëllëg muy doon sax ay conteneurs yi boppam yoo xam ne day ñëw ci ci barab bi di li nga wax léegi itam di leen gën a dénk rek ne euh, mbooloo moom fu ñu bari lu ñu man buñ néewee buñ luñ gën a bari kàttan nga gën a yokk kàttan suñu borom daf ko roof ci mbooloo al jamaatu raxma mbo suñ fal da ko firi woon ni al jamaatu mbooloo bu ñu bokkee yéene bokk pas-pas bokk jubluwaay rahmatun luñ jëm man ko loolu moo tax ñuy ñuy sàkku lu ginnaaw da ngeen am yéene di liggéey di andi ñoom ñu am yéene di liggéey di andi te barab yi soreewuñ suñ lëkkaloo woon day gën a baax rek waaye rek waxuñ ne na ñee na diw fekki diw waxuñ it ne na diw fekki diw waaye ànd daa gën baax ci ab liggéey waxuñu kenn fekk kenn ndax xamuñu ku war a fekk kenn ak ku wër te fekk kenn waaye li ñu jublu mooy rek ne ginnaaw ñëpp a ngi jëf te yéen a ngi dend su ngeen àndoon itam jëf ji day gën a day gën a rafet te li nga waxoon léegi bu boobaa ñi jëf danañ mën a yóbbaale ñi am yéene te mën a guñoo jëf te bu dana leen soññ itam ci ñu gën a góorgóorlu ci jëf ndax danañ gis ne ñëpp a ngi jëf yéen nag yéen a ngi jëf seen jëf a ngi si ñëw na ren ñëw na daaw ñëw na daaw jéeg yàlla na ñëw déwén ñëw déwén jéeg ñëw ay déwén yu bare bare bare ci kanam ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan ñu daje ci ngërëmul Cheikhul Xadim wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu